mbokk yi Serigne Abdoul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yëpp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw waaw bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca ca quartier ba ñu duppee sëriñ Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan looti nit seen i mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Euh, euh, Ousmane Sonko la 17 bi mu war a wuy ji. Hmm. yaa ngi ko fàttaliku Amady Diouf moo dinañu ko illustré procureur boobu xamee nga ko kar wala mu ngi nii xamee nga kii. Ah, kii moo jàpp. Euh, kii def na fi discours ba wax ci affaire. fanweeri fanweeri kii. waaw waaw mu jàpp benn ba si des rek. xame nga ko. xame naa léegi nekkatul procureur léegi juge la. léegi jot jàpp ñooña. non non léegi juge la Assane foofu. Ah. bàyyil bàyyil si ah, dëkk léegi nekkatul procureur. Hmm. léegi juge la. léegi day àtte. waaw xam nga procureur bi dem àtte ji. waaw léegi juge la moo war a àtte Ousmane Sonko la 17 incha allah bii di ñëw léegi nag ban jàngat nga def ci loolu euh, procureur Amadou Diouf mi nga xam ne moo fas yéene àtte Ousmane Sonko. Hmm. waaw loolu de xanaa nag ginnaaw Sénégal yi si ëpp bu dee noonu la demee moo koy àtte ndax it hmm. tey jii mënuñu ne yow procureur ga ñee ñooy àtte ñu dem ba yàgg ñu ne yow léegi yaay dem demal doon àttekat bi nga àtte loolu mën naa nekk am njàng la rek am njàng mu kawe sa compétence la yóbbu nga nekk juge dañ la yóbbu nga nekk kon dañoo jàpp ne maam ñuy àtte Ousmane Sonko ki jiite woon armée barki démb remplacé wuñ ko hmm. remplacement lay doon rek kii mooy ñëw fii dañ koy fal fooli falaat kii defaat ni am na solo léegi mi ngi noonu la ñu ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu saa jàmm waaye daa man jàpp naa ni hmm. mbir mi daal du doon du bokk ak mbir yi fi daan jaar ndax man li ma xaw a xalaat bii yàlla dogal na xam naa ci lu bëree bëri mais damaa yeewu fàtte lépp. Mhm. mais lépp laa xamoon. mbir loolu comme ça tey ji bi ma tëddee si fajar guddi bi lépp laa xamoon mbir mi ni mu demee mais dama ko fàtte. le 17 bi li a xew. waaw xamoon nga lépp. gis naa lépp mais dama ko fàtte ma yeewoo dama ko fàttee wa audio damaa jël sama bopp PV wax <laughs> pour ma yeewoo fàtte waaye yàlla xam ne lépp xamoon naa ko gisoon naa ko nii. mais fàtte naa lépp yàlla mën naa dogal naa gisaat lee ba daa saa àgg mais daal. sa xel dafa ñaaw. Euh, non sama xel sax ni ma gisee noonu ñaaw si ndax man damaa jàpp sax ni li ma jàpp nii lee moom gént ga moom réer na ma mais li ma jàpp nii. am na ko Ousmane dañ koo teg tànk fi mu toll de jekku nañ ko. waaw mën nañ koo jekk si wàllum mystique ak yooyu waaye damaa jàpp ni ñoom. Hmm. leen daan ci yàlla di xool ba xam ñii naka lañ war a defaat. Hmm. waaw damaa yaakaar ni Ousmane Sonko ñi mu àndal ginnaaw nee leen daan nañ leen lii. Hmm. ñu concentré wu si di si bàyyi xel mais jàpp nañ li yëguñu ko daal man daal pour man loolu la loolu la ñuy mm. def. d'accord jàpp ma ne dinañ dem wuy ji daal. jàpp ma mm. ne dinañ wuy ji jàpp ne bu ñu leen daanee kërëb kërëb wax duñ ci danañ si wax jàpp ma ne damaa yaakaar. daal jàpp dañuy bàyyi mu seet. damaa yaakaar daal dañ ciy reeree comme ni kii dañ ciy reeree laax daal. même bu ñu éliminé Ousmane Sonko. waaw ah, de buñ ñoom buñ nee lii lañ def ñoom duñ si wax dañ naan ci di seetaan rek te ñoom it pare nañ pour def li leen daanoon. aywa jërëjëf ki nga xam ne moom mooy Abdou Bari waaye yaa ngi may laaj lu bare bari sooy bu ku la solol sooy bu waa maa solol sama bopp nag waaye ku ci bëgg sama rakk moo koy jaaya ah. incha allah sama rakk ju baax. soxna si numéro téléphone ñu solal télé yëpp koy def. waaw yi dañuy toog naan maa ngi gërëm diw moo ma solal numéro téléphone am <laughs> 77 100 nangam del wax loolu. waaw mais leen waaye békk bitim réew naan leen lan moo tax du ngeen wax ki leen so si léegi ma solalee rek ma ko amul problème kon maa solal sama bopp ku ci bëgg rek sama rakk moo moo koy jaay soxna Siga Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax alaaji mhm. euh, Ousmane Sonko de dafa mel ki ko war a àtte tey na ñu bari ndax kii ko doon àtte ay jamono chargé woon na ko ba mu fees dell mhm. Mhm. Ah, moo tax moo lay wan ne la gars yi rek ay gré lay quoi hmm. euh, ndaa xam nga loolu mooy ndaanaan hmm. waaw maanaam Euh, xam nga li ngay gis nii mooy. Hmm. maanaam je m'en fous. je ah, damay def ci li may def ci je m'en fous. Hmm. loolu loolu moom mooy li ngay gis quoi première bi ndax loolu lay signé ndax loolu moom mooy nekk liy terminé nag. Hmm, xamoo ci dara. waaw parce que juge nag. koo xamante ni waaw. waaw koo xam ndax dañoo jóg pour wan ñu. dañu juge yi de ni ngeen leen jàppee du noonu pour ñu seetal ci justice moo ñëw àtte àtte boo xam ni. day méngoo li nit ñi di xaar wala ndax day ñëw ngir doxalee ni nga xam noonu la doon doxalee yow lépp ñaari mbir la yoo xamante ni bii fekk euh, mbir mi ñëwut doo ko xam mais xam nga bu ñu la présenté rek li nit ñi gis moom kii est-ce que dañ ñooy bëgg a jaaree ci li nag ngir defaraat xar kanamu justice. Ah, pour wane ni li nit ñi doon wax ñëw toogaat nekk beneen nit de. waaw li nit doon wax yëf yi demeewut noonu. Mhm. bu ko defee mu daal di am beneen euh, réconcilier ak ñi nga xamante ne bi ñooy euh, li xewoon maanaam mm-hmm. est-ce que nekkuñu tamit di réparer li xewoon parce que mm-hmm. yooyu tamit mën na ne mm-hmm. même mënumaa wax ne lii la wala lii mais beneen saay xam nga tey euh, boo nekkee ci bopp mbir di doxal am ñu bari ñoo xamante ni bi dañ leen a sénégalais yi fiché nañ leen ñoom ah. daan ne diw ak diw ak diw ak diw te mu wóor la diggante bi la la fa dese bareetut yow mi nga xamante ni bi yaa leen mën a couvrir hmm. te ëllëg si biir am na leneen lu am est-ce que appel yeeg yooyu yëpp jubluwuñu pour jéem a euh, setal nit ñi pour après tamit seen nekk ci réew mi mën a ne ñu continuer di exercer seen métier normal ah, da nga jàpp ni mën na am ah lu ne mën naa ne loolu nag xalaat la rek bu rafet bu may xalaat nii. Mhm. mais damay damay wax ne rek beneen buntu mën na am ah, quoi beneen buntu mën ah, na am bu bokkut ak ñun bi ñu jàpp. gars yi nee na Ousmane am na ku ma gis mu seet neen na seet na ne Ousmane daal dafa ne ci ay jafe-jafe ci moom <laughs> sax. comprendre am na loo xam ne moom. jàpp Ousmane daa ay jafe-jafe sax <laughs> mais Ousmane Sonko daa mës a ñàkk nekk ci ay jafe-jafe. Ousmane Sonko. mosul ñàkk nekk ci. Eh, Ousmane Sonko jafe-jafe ko jik waaw man damay wax ne saa yu gënee am jafe-jafe gën a jóg ci kaw. Mm-hmm. ku mel noonu nag da ngay tey ci ay mbiram. parce que mm-hmm. saa yoo ko gënee teg jafe-jafe ay mbiram gën a jëm kaw. Mm-hmm. seetlul depuis que mu démarré ba nëgëni. dañ koo teg jafe-jafe dàq ko. wallaahi wallaahi bi ñu ko dàqee fekk na mi ngi doon politique moom. ca la parti ba gën a jóg. ginnaaw bi nga ko dàqee da nga ko dàq ba pare ñu ñëw ne viole na. avant loolu sax dugal assemblée jaaral assemblée. daal assemblée nationale fexe ba jëlee ko fa. yaa ngi dégg ñu door ko fa ñu door ko assemblée. waaw problème yore am mu gën a jóg. nekk maanaam chaque jour Ousmane Sonko dafa mel ni ci jafe-jafe ci lay am ay euh, récompense mhm. ci lañ koy fay. parce que tey jii nit ñi bi ñu ko gënee toog di ko déglu. Mhm. faw yenn situation yi am ngir nit ñi gën la bàyyi xel maanaam ni mu bëttee frontière yi fi mu jaar. Mhm. trajet bi ni mu gaawee. nattu yi ni mu baree moo ko waral. d'accord donc nit ñi il faut que tamit ñu bàyyi xel ci loolu. macha allah waaw.